Alla Dieng teew na moom mooy directeur exécutif bu UNACOIS yeesal di mbootaay bi ëmb ay commerçant ñuy waxtaanee ci coow li jóg fan yi seen digg ak waa douane euh, monsieur Dieng ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay. Mm-hmm. di nuyu ñu ne seetaan mais surtout aussi di nuyu staffu. groupe yëpp. Ah, li leen merloo bu dee mën nañ ko waxee noonu mooy dogal bi tukkee ci direction général des douanes ñu génne benn mesure kon ngir xoolaat euh, li nga xam ne moom ngeen di fay bu ngeen indi ay marchandises di ko dédouané ndax mën nga ko leeral rek tuuti ci tënk ci li nga xam ne ñoom ñooy dégg. waaw merci beaucoup euh, ñaari précision laa bëggoon a indi dañuy wax ne commerçant yi dañu waroon a grève tey xëy na ñenn ci commerçant yi. ñenn ñi waaw parce que ñi ko waroon woote ak ñun bokkuñu. Mm. am nañ ci droit nag ah parce que ci réewu démocratie lañ nekk. waaye beneen précision précision bi mu indi aussi mooy douane yokkul taxe bi yokkul coût taxe yi yokkul dédouanement procédure bu ñu daan dédouané la la xëy na la koy changé xëy na nag am na ay raison parce que am na raison yu ñu jox moo tax euh, réunion bi xawoon na gudd démb ndax daanaka ñetti waxtu yi tegal na euh, mais euh, du woon njëggu yokk ba tax wala ñu ne dañu yokk taxe yi ba tax ñu ne mën naa yokk njëg yi Euh, te loolu day affecté tout le monde consommateurs yi compris mais ñu fàttaliku ne Sénégal dafa bokk ci ay kuréel bokk na UEMOA bokk CEDEAO donc ci wàllu duwaan am na sañ-sañ yoo xam ne nii mënu koo am defal ko boppam te déggoowu ci ak ñi ko bokkal. Hmm. donc du woon euh, xëy na dañuy yokk tarif douane maintenant daje bi guddoon na trop macha allah. Ah, laataa daje bi ah, rek nga baal ñu euh, monsieur Dieng hmm. parce que douane moom ci boppam sax waxul yokk. Ah, moom ay correction la wax maanaam defaraat. li nga xamante ne moom lañ daan fay xaj na dafa am euh, lu ci lu ñu waroon joyanti loolu lañ hmm. def jamono ji kon loolu tam faw mu leer. waaw li ma li ma ci war a leeral foofu mooy. Euh, dafa am nu ñu daan dédouané loo xam ne nii dañuy gis benn conteneur rek ñu wax forfaitaire daal ne commerçant bi fayal nangam. te xamoo li nekk ci biir. léegi nag douane yàgg naa ak ñoom ci loolu xaj na arrangé woon na commerçant yi xaj na mu arrangé woon na douanier yi mais dafa mënut te wéy pour plusieurs raison parce que jamono dafa toll foo xam ne nii euh, affaire terrorisme ak affaire sécurité yëpp dafa am conteneur bu dugg ci rek war nañu xam ne ci biir alors commercant bu déclaré na fexe ba la mu déclaré dëppoo ko ubbee lañ cay fekk. souvent man na wuute léegi nag bu fekkoon du ànd daan gëmu bëtam di leen may loolu dafa dem ba léegi mënatu ko xam nga li ma wax baax donc léegi-léegi ah, may nañ commerçant bu ne mu déclaré nekk ci conteneur am balaa ñu koy dédouané waaye la mu déclaré na dëppoo la mu fay fekk mais daawuñ forfaitaire bi ñu accep bi ñu daan def la douane accepté tul. maanaam xayma ñëw rek xayma rek xayma rek nañ fayal nangam ah, daana fi am. c' est quelque fois dañ ci daan gagné temps waaye quelque fois yeneen nag ñun en tant que UNACOIS Yeesal le mardi je crois 28 mai. woo nañ ñu ci rencontre boo xam ne nii man waroon a ma bokk ca décl ca réunion ba sax mais bu ngeen fàttali ko mi ngi dëppoo jour bi ñuy wax euh, dialogue dialogue présidence ñaari kii ñoo ànd ñaari point léegi ñu mujj ñii dem douane man ma dem présidence léegi nag Moustapha Tall moo nekkoon douane ak président Cheikh Cissé kon yëgal nañu jour boobu lii ñu nar a def. douane yëgal nañu kon yéen waa Yeesal moom gisoo leen ci benn jafe-jafe gisoo leen ci dara lu ngeen ciy ñaxtu. ci li parce que dañu dem xam ne dëgg la dañu dem xam ne yoon la léegi nag nga am lu nekk yoon Euh, nga dem ba ci biir xañ loolu neexu la nga ne damay grève am nga ci droit mais est-ce que c'est la meilleure solution parce que ñun dañ ne comme ñu en œuvre na ñenn ñu naan ay seen i i marchandise mi ngi des foofule ca port ba euh, ñun bi ñu ne am na jafe-jafe ñu ne nañ déglu douane danañu waxuñu waaw waxuñu déet mais dañu déglu xool mu jur

am nañ ci droit mais ñun dañu ñun grève ñu dañuy wax douane mu wooñu ñu ñu def concertation ba démb ci suba gi lañuy ñu woo ñu 16h na nga ñëw concertation boobu journaliste yu bëri woon nañ ma mais dama ne mënu ma ci wax tant que dégguma ba génn su ma génnee ma wax lu ma fay jëlee. léegi ngeen lan ngeen fa jëlee lan ngeen fi jëlee ci gàttal ah. d'abord saluer duwaan parce que euh, waxtaan bi yàgg na mais directeur général may na temps wu ñëpp wax na. may na may na ñu kàddu ñi bokk ci UNACOIS ak yeneen commercant yu bokk ci UNACOIS kooku aussi yoon la parce que réewu démocratie lañ nekk mais jox na kàddu transitaire jox kàddu yeneen importateur jox kàddu eh, ah, agent douane parce que moom il était avec 15 de ses collaborateurs il a il la parole aux douaniers d' abord ñu wax situation bi lu ko waral ak lim nar a jur léegi nag ñeneen ñi aussi jël ñi jël ñu bëri nag dañu jàmbat ne euh, monsieur le directeur général bu ñu bëggoo bu ñu sañoon nga woyofal yëf yi ñu bëri waxandoo même orientation. ñu woyofal ko wala si le faut ñu mettre ko en veilleuse ba tabaski weesu parce que bagage yu bëri ñëw na pour tabaski la war a doon am na aussi diggante ñu war a tukkiwaat pour indi balaa tabaski dé directeur général bi mu ñëpp nag ñu jël fa quatre mesures yoo xam ne ni ñun ànd nañ ci que benn benn la ko wax ñu validé ko un mesure bi njëkk a def mooy clause transitoire pour conteneur dafa nekk dina génn à part tey ci suba. tey jii waaw mais ancienne formule lañ koy génnee. du bokk ci formule bu bees. waaw waaye nag li ci soppi mooy douane dana dana def inspection. c'est-à-dire même bu ñu joxe forfaitaire sax yow bien sûr dañu lay topp ba ba à domicile sax mën na def waaye na def déclaration même bu dee 1000 francs defal déclaration su ñëwee dinañu bi na xool li nga déclaré ndax nag la ci biir xam nga loolu aussi yan na maanaam parce que inspection pour bagage yu jóge bitim réew dugg fi war nañu xam lan la un donc dañuy teg en place benn commission d'harmonisation boo xam ne nii douanier yi lay doon commerçant yi transitaires yi yi am na mesure yoo xam su ko jëlee c'est pour protéger l'industrie locale les industries locales su am na usines yu bëri yu tëj yoo xam ne importation yi ñoo tax ñu tëj ñun am nañ ay membre importation mais dañu bëgg suñu membre importation ñenn ñu dugg ci industrie def ay PME PMI di produire Sénégal di produire loo xam ne ni da nga ko daan importer mën naa am maintenant am na lu état bi joué boo xam ne il faut ñu am accompagnement pour subventionner produits sénégalais mais su de balance commerciale te warul continuer donc ñaareelu mesure bi mooy comité boobu danañ ko commission danañ ko mettre en place pour harmoniser ba ba yi ñuy dédouané ñu juboo ci kàddu te directeur général 30 jours car xëy benn suba rek nga ne commerçant yi suba bu kenn tijji bu bu kenn tijji na ñëpp tëj loolu boo ko eh, loolu aussi dañ ko wax par seen tur donc ku ne am nga droit wax sa turu bopp ku ne am nga droit wax sa turu xarit wala groupe ngeen bokk nekk ngeen bokk noo am ngeen droit wax waa bu ngeen nekk groupe wax ci turu Tilène waa Sandaga même chose mais bëgg wax ci turu commerçant yi Sénégal yëpp amuloo légitimité amuloo légalité légitimité commerçant ñoo la koy jox légalité bi état bi moo la ko jox mooy récépissé. ñi nga xam a leer ñi ne ñoom ñoo am këyit nag ndo ñoom lan mooy seen rapport ak ñoom. mooy Unacois ñoo fa nekkoon di wax ñoo bokkandoo ñoo bokkandoo lu ñu kaas waaye approche mën que ñun ñu doon waxee ne dañuy dañuy def pour gën a protéger suñu industrie mais ñun war nañ ko xam ñun dañu ñun Unacois Yessal dañu bëgg sénégalais yi ubbi ay usine di liggéeyloo Sénégalais yi di produire Sénégalais yi di ko consommer mais jour di tax man moo ma gënal boisson yi ñuy importé bitim réew jour buy moo ma gënal man man hôtel bu ma dem damay wax jour buy laay naan moo ma gënal boisson yi ne ci canette yi alors loolu war nañ dem ba industrie ak non seulement di ko jaay ci réew mi jaay ko dans la sous-région mais jaay ko sax yeneen continent ñun foofu lañ toll. ndax yaa ngi wax légitimité ndax tamit c'est légitime ñu naan ñu may leen ba fii ak tabaski ndax at yi weesu yëpp ñoom ñu ngi doon doxal yéen sax laay wax ah, ah. yéen a ngi doon doxal waaw mi ngi noonu yéen ñëpp yéen a ngi doon doxal xañ na di ngeen ci am li ngeen mm-hmm. ndax tamit euh, jaadu na ngeen naan nañ leen mayaat non xam nga xam nga kii kii ñaan boo jàkkaarloo autorité autorité bu gis nga autorité bu bu fekkee loi rek la topp légalité loi rek la topp mën na laa gaañ mais na ñëw ubbi ni nangam a fay nga ñëw ne ko jàppale ma ndax lii la am dana xool est-ce que yoon may na ko mu wàññi su ko yoon may mu wàññi rek mën na la wàññil bu la wàññilee moom bu signé dafa engagé responsabilité mais bu fekkee loolu engagé parce que li nga yor mëtu mais da nga am ñoo xam ñëw fay douane ko neexoon ne bagage du fi jóge te fayu leen donc am na loo xam ne ay arrangement lañ ñu ko ñaan dañ lay ñaan def xam nga bu amee keneen ku ñëwoon xam man directeur général nga la ñun lii la ñu ndax xam nañ ci yoon lañ ko teg. non c' xam nañ ni nekkul ci dëgg dafa wax commerçant yi ne leen li ngeen daan doxale xam naa ko xam naa lépp. njuuj njaaj la ah, mais am na ci. Hmm. pour dire la vérité te loolu bu amee autant commerçant bi ko def am na ci responsabilité autant douane bi ko accepté am na ci responsabilité directeur général na ay ay ay ne leen am na ci loo xam ne a ko def yéen a responsable wax na leen te segam day situé responsabilité ñi nga xam moo leen yilif jàkkaarloo naa commerçant ak transit ne liggéey xam naa ko et il a parfaitement raison parce autorité réew mi ñoo ko bokk dañ ko war a sàmm ku nekk jox sa participation dafa am lu dafa am lu ñuy wax citoyenneté fiscale impôt bi nga war a fay ak douane da nga ko war a jaarale ci yoon soo demee ba li nga yor matul am nga droit ñaan ba ba ngeen déggoo ci kàddu bu fekkee am leen lu ci rax sénégal yoo xam ne du ma ci dugg. Mm, jërëjëf Alla Dieng di la sant di la gërëm yaay directeur exécutif bu UNACOIS Yeesal sant la bu baax. merci beaucoup ah, maa ngi sant waa TFM ñëpp jërëjëf.